jërë ngeen jëf waa ji ñu suli woon ca kaw lax taal ko ñu ko defoon coowa ngi leen di bëgg a topp ki ñu taaloon ak ba ñu koy taal photo yooyee la libération xëy indi ci xëtamu njëkk partagé ci réseaux ko am na ñu ci xàmmee am na ñeent ci ñoom ñuy jàpp dem ki ñu ne moosoo ki mbiri nag di instigateur ba identifié nañu ko waaye gisee su ko ndax dafa daw fa mu xewee di ca leew na ña xalifa ba di sëriñ Cheikh Ahmed Tidiane Khalifa Niass yéenekaay bi na ab communiqué démb ba di ca ñaawlu li i Le Quotidien dañuy wax ne wax nañu ci communiqué ba ne li xew ca leew na ña seen mu di nit ku faatu ñu suul ko ay nit dem sulli ko ba pare taal ko loolee lu ñaaw la le mandat ñu ci ne leew na ña na ci ne li xew ku ci tudd kilifa diina yee ca leew na tooñ leen ndax taqewuñu ci le témoigné nañu loolee xew ci Kaolack ñi ko ñaawlu bari nañu te yemu rekk ci réew mi ne ba ca bitim réew ña ngi ko fay ñaawlu li ñaaw te jara ñaawlu dëgg l'observateur mi ngi mel ne ku naan ñu mooy jëfi suwaas yi ñuy gis ci réew mi jamono ji sulli ab néew taal ko baa nga gis ci réew mi ku nekk ci jafe-jafe moromam yéene ko ko ba di ci bëgg loolee mu am ci Sénégal journal l'info nañu suñu réew di Sénégal fi mu taxaw jamono ji bu fa jugul du na yomb lool Ousmane Sonko gi mu sisir cour de justice bu e e wax ci <coughs> Sonko face au mur Sud Quotidien nañu a wax ci ay mbiram ko def nañu tey ji la ci cour bi war a wax waaye agence judiciaire de l'État bi li mu bëgg mooy ñu reporter audience bi Vox Populi ñu report googee agence judiciaire de l'État bi bëgg awkaay Ousmane Ousmane Sonko yi nee nañu ñoo ko ba tëdd wa kenn du ko fi reporté cour de justice bu CEDEAO ci mu war a yi ci mbiri Ousmane Sonko surnaal bés bi le jour ngi ñu koy wax nee nañu benn bi mi ngi jëm ci raje gi ñu ko raje moom Ousmane Sonko ci liste électorale yi ñaareel bi jëmit ci tas gi ñu tas parti bi di Pastef avocat yi demoon ca Sénat commission électorale nationale autonome doon sàkku ci moom mu wax waa direction générale des élections journal yi tey Aliou Mamadou Dia candidat bu pur ci l'observateur Mamadou Lamine Diallo bu mouvement tekki ci la Sénégal Thierno Alassane Sall bu république des valeurs ci journal Le Mandat ci xët mu njëkk Les ministre Abdou Karim Fofana porte-parole gouvernement bi ma nga fa yéenekaay bi bind ne Abdou Karim Fofana corrigé na Boubacar mi jibaloon xalaatub ñu reporter élection présidentielle yi ndax dafa jàpp ne Sénégal jekkagul Abdou Karim Fofana nee xalaatub ñu reporté élection yi Les Échos ne nañu fa ma taxawoon fa la taxaw ba tey jàpp na ne ak ni mbir yi tëddee ci réew mi ay élection yu jaar ci yoon mënu fay am ñi am doole ci wutum parrainage le mandat ne nañu mooy waa sa bopp bu Bougane Gueye Dany dajale nañu lu toll ci 8300 parrain ba tey ci diggante nooto Diobass Ndiireen Anen Tuubaatul Ceneba Fandène ak Pout point actu mel ne naan ñu waa Benno Bokk Yaakaar it ñoo ngi wane seen bopp bu baax a baax ci wutum parrainage lu ëpp 68000 jox ko coordonnateur pôle parrainage bu Benno Bokk bi di député Abdoulaye Diagne moom Abdoulaye Diagne direct news mi ngi ñuy xibaar ne ma nga woon ca week-end bi ci diwaanu Louga doon fa nangu ay parrainage yu ko fa Modou Diagne Fada doon jox mu tolloon ci 54 bu fekkee Benno Bokk Yaakaar bi encaissé Bounama Sall délégué régional bu Thiès point actu mi ngi ñuy wax ne Mamadou Diagne Simbeng directeur général bu SNHLM di responsable politique ci diwaanu Tivaouane jébbal na ko parrainage yu toll ci 7650 12 migrants ci fukki migrants ak ñaar yu jëloon gaal doon bëgg ngir dem Espagne te far mujjee ci fu doy waar ñoo ngi ci source wa ubbil yéenekaay bi fukki migrants ak ñaar yu dëkk ca baasul ga ca Fatick ñoo jëloon gaal jële woon ko ca Kafountine ñoo faatu ci géej gi juróom-ñett ci ñoom ca baasul ga ca Fatick fa la ñu dëkk ñeent yee ca île bu jogaan ci ñi ci faatu source wa ne am na ca benn femme bu àndoon ak doomam jël gaal gi ngir bëggoon a fekki jëkkëram Espagne bi ñu defee ci géej gi juróom-benni fan ci la ñu panne carburant la ñu doon dundee jeex ñu faatu